téléspectateur de Sénégal set dañ leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di amati mbégte bu baax di jàkkaarloowaat ak yéen ci seen plateau bi nga xamante ni macha allah miin ngeen ko lool waaye saa su ne dañuy fexe rek di indi les personnes qu'il yoo xamante ni macha allah da ngeen leen di doon xaar depuis très longtemps waaye nag tubarkàlla ñun ak exclusivité ñoo ànd Sénégal set la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit ba tax na tubarkàlla dañoo génn ci 8 mars waaye ki nga xamante ni moo ko gën a marqué moom moom la invité day ndaw doon koo xamante ni ci li ma gis jàngat ko sénégal yi aussi gis ko bokk na ci ki nga xamante ni du bàyyi décoragé taxul mu puus euh, metti taxul mu randu ak lu mu mënti doon macha allah ak équipe bu am solo bu solide bi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam tax na tey mu doon euh, la personne qu'elle est aujourd'hui macha allah ma damay fière di ko présenter ndax sama rakk la mm-hmm. ku miin Sénégal set la macha mm-hmm. allah Dieyla mm-hmm. chérie nuyu naa la maa ngi lay fay caat sama mag sama lépp comme ni nga ko waxee rek di mm-hmm. nuyu waa Sénégal set ñëpp. Mm-hmm. ndax fi sama kër la du ma fi gan. dëgg noonu <laughs> képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal ak samay soppe di am contentement wu rëy rëy euh, yu ma ñëwee ñëwee rek. di ko bokk ak yow ci plateau bi. macha allah macha allah toogaay bi sax dalul euh, première. Euh, saa su ne dañ koy def te saa bu ñu ci jógee rek adduna bi. wallaay wallaay noonu lay demee waat macha allah alors merci beaucoup pour ce que nous regarde ci suñuy différentes plateformes yéen a ngi ci seen émission bi di makkaan. Mm-hmm. Euh, ñu ciy dalal nag tey koo xamante ni wax naa leen ko sànq. Mm-hmm. Euh, aîné yi nga xamante ni sax ñoo ko njëkk ci millier bi. Mm-hmm. dañ koy dañu maanaam dañuy am fierté di ko présenter. dañuy kontaan ci di ko présenter parce que liggéey bu rafet bi muy def. Euh, tey bu ñu ñëwee ñu daal di ñëw rek attaquer directement. ak baat ak tontu. bi ñu saafisee ne yow la invité sénégalais yi non seulement dañoo kontaan. mais bari nañ ay questions yu ñu bëgg tey ji nga ñëw bii may wax sama question propre la bi ngay soog a génn mhm. ak tey eh, fii jëy laa toll mhm. euh, nekk na loo xamante ni dina la bett du la mhm. bett parce que ndaanaan nga certes waaye est-ce que xaaroon la ak actuellement ni euh, euh, carrière bi yàlla def ci jàmm te ñuy ñaan mu gën a yokk parce que commencé guñu sax macha allah mais est que loo xaaroon la yaa de cela cinq si ginnaaw bon d'abord dama koy sant yàlla bu baax a baax te xam ni yombul. Mhm. nga nekk xale bu ndaw ba nga ñëwee ci milieu bi yàggul dara wax dëgg neex yàlla ñu teg la fu kawe kawe. Mhm. saa yoo génnee son nga gis ñii ni ñu koy challengewee donc man awma seen fay. Mhm. di jëlaat jukkal bi yëpp di ko delloo tamit sénégalais yi. waaye man dama nekk nit boo xam ne ba may ndaw ba léegi dama am dama am benn gëm bu nekk ci man. te mën naa ne nit ku nekk. boo amee sa ngëm-ngëm rek yàlla dala ciy fekk si. yàlla ku gëm la àndal. donc comme ni ma koy waxee jóge naa seen petit dem naa fa ba jógee fa mm-hmm. jaar ci yeneen compétition jaar ci yeneen studio di raye mm-hmm. lépp rek man a duma bàyyi faaw mm-hmm. xam nga rek bëgg a wane li nekk ci man certes yombul woon mais sant yàlla dem naa tey jii ba damay toog di fàttaliku loolu xam ni euh, ku muñ muñ rek te ku góorgóorlu rek yàlla lay fekk effectivement looloo tax ci samay ndoxteel ma wax ne nit la boo xam ne du bàyyi gis ngeen fi mu xaw a jaar bari na bariwul parce que ndaw la te li ko dese bari na lool macha allah waaye dañuy am benn force boo xamante ni mi ngi ci jëy laa euh, bàyyi mais quelle est mm. réellement cette cette force là mm. parce que euh, tamit am na loo xamante ni même bu fekkee ne dangaa buggul bàyyi mm. am na leneen lu la gën a motiver à ce nga bëgg a continuer bon man li ma gën a motiver mooy benn deret way sama deret la nekk parce que samay maam dañ doon way et tout waaw sama famille man su ma wayee damaa war a way su ma wayul damaa war a way et que bëgg naa yóbbu musique bi fu sori sori mm-hmm. loolu moo gën a nekk sama mbëbët moo tax mm-hmm. du ma bàyyi bien sûr mm-hmm. yenn saa yi ngay dégg Qu'est-ce que ça vous fait bon contentement bu rëy rëy rek. Mm-hmm. xam nga waaye dafa war a jóge ci xol. Mm-hmm. di dem ci xol. bien donc te man da man yéen laa am yen laa bëgg. Mm-hmm. donc damay def mi ngi noonu nag damay def lépp lu ma mën rek. bëgg muy dem directement seen xol muy neex. man loolu laa bëgg macha allah muy nekk lu neex a neex loo xamante ni wax dëgg yàlla sénégalais yi ñoom tamit dañ koy enjoy muy neex lool ci ñoom. Euh, waaye euh, ñu gis say dernier titre yi nga xamante ni def nga ko. non seulement euh, côté écriture dafay. dafay extraordinaire. côté image aussi. aussi macha allah. coté li nga xamante ni aussi euh, moom mooy habillement dañoo gis beneen changement. Mm-hmm. beneen développement. Mm-hmm. Euh, ci ki nga xamante ni moom mooy Dieyla. Mm-hmm. Euh, kan mooy nekk ci ginnaaw. en réalité. écriture bi yaay bind. mën naa ne ñun équipe la ñun ñëppay liggéey ci ginnaaw waaw dama ci jaare di nuyuwaale di ko remercier mooy Yaas moom tamit mu ngi def liggéey bu sama manager mu ngi def liggéey bu rafet rafet macha allah donc képp koo xam ne rek am nga ci sa idée da ñëw ñu toog ñu waxtaanee ko parfois. fois ñoom ñu bind ma leen li sentiruma ko ñu dindi ko teg fa leneen mhm. mu dem mhm. loolu rek la effectivement mhm. macha allah donc euh, su ma juumul euh, may nañ artiste bi ci fi nga nekk may nañ artiste bi aussi mu joxe son point de vue par rapport ak li nga xamante ni moom la ah waaw waaw bu baax a baax ñoom mën nañ bind loo xam ne yow lii du la neex wala ñu teg mélodie bi neexu la nga ne leen nañ ko teggi teg ko parce que liggéey la benn xalaat rek du doy donc ñun ñëpp dañuy sottante xalaat xool nu mu gën a naayisee lii nga xam ni Euh, bu ñu ko defee rek dina neex nit ñi et dina dugg seen xol directement. macha allah dee ko fal moo mujjee génn. Mm-hmm. après nga teg ci jaayu leen. macha mm-hmm. allah dafa dafa amaat réplique waaye tamit tout le temps. Mm-hmm. dañuy gis ne quand il s'agit d'amour mais aussi quant il s'agit de donner des conseils. on la l'attendre dans ci son Dieyla. Dieyla euh, bu bu toogee ba ñu jox ko texte ba mu sentir ne lii war na ko way lan lay ñëkk a yëg. bon li may li may yëg lu lu doy waar la. Mhm. man wax dëgg balaa may génne waaye man dama koy yëg ba pare. Mhm. voilà moo tax su ma ko génnewee macha allah damay gis nit ñi ni ñu koy bëggee. Mhm. waaw parce que comme ni ma la ko waxee rek nit ki balaa ngay. balaa ngay def dara pour mu neex nit ñi yow def ko mu na la neex ba pare. Mm-hmm. donc comme ça xam nga ni bu la neexee bu ñeneen ñi mooy loolu. da leen di ne da leen li ngay yëg euh, su su nekkee lu réel. Mm-hmm. Euh, dafay évident ñeneen ñi. man man man su may su may su may prise samay son wala su may bind samay texte man maa ngi ci biir son bi. macha allah man mhm, maa ngi ci biir macha allah oh. mhm. eh, loolu mooy tax aussi mu am différence. Mhm. ñu ñëw tuuti ci jaayu leen. 8 mars ñëw euh, kenn ku ne xam na ne tey ki nga xam ne mooy sa idole. Euh, amoon ay jafe-jafe. ci au niveau de sa voix. mais ci 8 mars bi mu gin génn. Euh, bi ngay way son bii nii. di ko jagleel jigéen ñi. ana lan moo njëkk a dem ci sa xel. bon caat jigéen mooy àdduna benn. parce que man dama fonk jigéen damaa bëgg jigéen. ak nit loo mënti mel. Mhm. noo rëy rëy ci àddina fu ñu la mënti woowee jigéen rek moo moo moo la jur. effectivement donc jigéen mooy àdduna mooy lépp. Mhm. donc euh, ma ne pourquoi pas du ma ko way te li tax sax ma gën ko way mooy sama yaay. parce que dafa nekk nit koo xam ne dafa yàgg muñ ndax ay doomam. takkul mhm. or bàyyi ñu lekkul bàyyi ñu. nit bu liggéeyal ay doomam. wax dëgg neex boo taxawee suñu koñ koo ne maa anta koo ne tur. yaayu Dieyla ñëpp wan la ko ñëpp ko xam ndax baax gi mu baax voilà mu ngi noonu nag ak li may gis chaque jour mosuma gis mu xuloo wala mu tongoo di joob di rey boppam man moom moo ma inspiré daal au fait mhm. mhm. moom ma inspiré su ma ko xoolee sama xol day sedd mhm. parce que dama naan euh, xaw ma de mais Sénégal su ma neexee ma ne maa fi gën yaay. wax dëgg neex yàlla parce que. Mm-hmm. yaay ju baax la seen caale dem ba seen kenn du moom ci man. tubaarkàlla macha mm-hmm. mm-hmm. allah xam nga loolu rek mooy te bépp doom. Euh, fexe ba sa yaay bu la euh, wàccee ci kaw suuf. kenn du ko amal lenn luñ ko mën a taajal. tubaarkàlla yombul nag wax dëgg moom moo tax euh, dañu leen di war di glorifier dañu leen di war di sant bu baax a baax. ñu ñëwaat ba tey desandi ci li nga xamante ni mooy clip bi. wax naa ne li solo Dieyla léegi professionnel donte mhm. yaa ngi daan solu selon ak mhm. ni ko ko daan sentir. Mhm, mais pour cette fois ci dañoo gis ne dafa am évolution ci solu bi. waaw noonu la noonu la et que musique moom feeling rek la. donc loo ciy gën a dem ak lu nekk ak muy laaj rek mhm. waaw wax dëgg neex mhm. lu nekk ak muy lu muy laaj clip bi bu buñ ko war a def ni lañ war a solo ni la mhm. teewul tamit day yiw ba tey voilà man sama solo moom non ñun loolu moom ñëpp nangul nañ waaw macha allah <laughs> mooy loolu man solo bi moom nay yiw rek ma koy sentir tout à fait lu am solo doon xale yegg si fii nga yegg si c'est pas évident mais liggéey ak bëgg li nga xamante ni moom ngay def bokk na ci li nga xamante ni moom moo lay jàppale en réalité euh, bu ñu jugee ci loolu ba tey tey ci mm-hmm. leneen li ñuy rebondiraat ba tey du jóge ci li nga mm-hmm. xamante ne moom ngay def mm-hmm. moom muy musique euh, ñu gis ne nag yàggul dara amoon na événement bu rëy bu xewee woon fële ca stade bu Diamniadio bu maître Abdoulaye Wade ñu boole leen yow ak ki nga xamante ni moom euh, Wally Seck woo leen je veux dire euh, ci son boobu nan nga njëkk a jàppe initiative boobu bon rafet dama koy rafetlu bu baax a baax a baax di ko nuyuwaale parce que sama papa la sama lépp la. Mm-hmm. mu nekk tamit nit ku baax a baax macha allah. Mm-hmm. donc ba ma woowee ne ma dama bëgg nga ñëw participer si sama son damay ñëw. Mm-hmm. waaw man Sénégal musique Sénégal laa fi nekkal daal musique laa fi nekkal. donc képp koo xam ne rek woo nga ma ci wàllum job dama dama lay si bu moom ak keneen ak keneen képp ku ma ci woo damay dem. parce que waaw mi ngi noonu dama open parce que ñu ñun ñëpp c'est ñoom ñooy suñu ay mag seeni tànk rek lañuy lañuy nekk. donc man ku ma ci woo muy moom ak keneen ak keneen képp ku ma ci woo rek. dama mhm. macha allah te fierté lay doon ci man. effectivement ñu dégg aussi ne moom moo doon déployer ses propres pour yéen aussi mu rémunérer leen est ce que loolu c' était euh, véridique cela dire moom mhm. ba ngeen paree ci way bi. Mhm. moom moo leen doon fay xaalisu boppam. et non pas xaalisu kenn dégg nañ ko ci ay image non macha allah comme ni ma la ko waxee xam nga nit tamit su la defaree lu baax faaw nga wax ko. voilà may na ma terrain ak yeneen ak yeneen donc borom baax la daal. ndeysaan mhm. Wally Seck. Mhm. donc loolu it bokkoon ci li nga xamante ni lu xamante ni Sénégal yi dañ koy bëgg a xam te mhm. rumeur baaxul duñ ci bëgg di sukkandiku. donc yow yaa ko waxal sa bopp moom nag dafa tàmm teraanga. ku mu toogal teral la tubaarkàlla. donc yal na yal na la jig it nga di ko def ay château léegi. amiin ñu gën a wëy ba tey. bi ngeen defee seen chanson bu neex boobu nga xamante ni la kenn ku nekk ci sa passage joxe nga ci li nga mën ak li nga mënul yëpp Euh, ngeen dem euh, presté woo leen. Euh, mhm. nan la leen njëkk a def. Mhm. bon defuñu dara parce que loolu ak musique ñoo ànd. Mhm. loolu am musique ñu ànd peut-être problème mu temps bi organisation bi mais defuñu dara de. bii leen yi Sall woowee son excellence encore. proposé waat leen ne incha allah match retour bi yéen yéenay def prestation bi. ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan rek. kontaan man moom lépp loo xam ne moom ci wàllu musique la jëm képp ku ma ci woo damay ànd ak mbégte bu rëy boo xam ne parce que mm-hmm. dama ko bëgg daal tout à fait bu rëy la woon parfois euh, yow xale ngay mm-hmm. gis yenn saay xiiroo ak ŋaayoo mm-hmm. xëcc xëcc xëcc boo xamante ne day am ci seeni aîné euh, nan la lay def à la oh. longue bi nga xamante ne parfois da nga koy gis yenn saa ñu naan sabotage am na critique commencé di jëp ti ñoo xamante ni ñoom ñoo leen mag euh, yow en tant que xale ban ressenti ngay am ah, comme ni ma koy waxee rek euh, rafetluwu ma ko rafetluwu ma ko donc euh, ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi mhm. et que musique bi kenn mënu ko jeexal ku nekk da ngay ñëw mhm. jël li nga mën def li nga mën boo paree dem sa morom ñëw donc àdduna na rafet mhm. donc nettali bu rafet daal moo dàq lépp ci àddina mm-hmm. donc nañ ko rafetal et que ñun ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi na lépp nice daal effectivement mm-hmm. euh, yenn saa yi aussi euh, am na koo xamante ni tey bi may ñëw nee na ma laajteel ma xale yi mm-hmm. te comme tey yaa fi xale yi def musique yëpp donc euh, je me permets laaj la ko que ne à chaque fois dañuy gis ne parce que ma rappelle wala ma ma bañ a sax traversé loolu te duma ko leeral jëw bi nga am ci sénégalais yi ba mag ñi di la ko jëwee mooy mën ngaa woy te dangaa yaru donc du dama la bëgg lu la neex moo tax ma la koy wax man sénégalais laa fi toogal euh, gis nañ ne aussi duñ lay gis tout temps ci mm-hmm. détail mm-hmm. mais bu fekkee ne da nga koy gis parfois ci ñi nga tolleel génération mm-hmm. ñuy détaillante ci seen bi parfois ñuy sànnante track yow quest que ça fait et si bu fekkoon am nga benn conseil boo leen di jox lan lay doon bon comme ni ma koy waxee rek ñun ay ndaw lañ te dañoo toll ci liggéey waaw nañ ñaanal rek ñun ñëpp ñu nekk ci liggéey loolu rek la et man ni ma mel nii bon dama koy sante yàlla xam ni lépp yàlla la di jëlaat njukko bi tam di ko delloo samay ñaari waajur parce que bu bu yaat bi nekkee ci man ñoom ñoo ko def ci man. tout à fait donc leen di delloo njukkal bi. effectivement mm-hmm. tey message bi ngay lancé ci critique yooyu nga xam ne parfois day jugee ci ñoom. Mm-hmm. di demante ba euh, parfois réseaux sociaux yi di jotee. tey boo mm-hmm. amoon loo leen di wax la lay doon. bon comme ni ma leen comme ni ma la ko waxee sànq rek. nay rafet ñun ñëpp ñu koy rafetal àdduna amul solo. comme ni ma ko waxee ci maa ngi baax. waaw donc li tax man man sax ma gën ko waaye parce que damay gis yàqante bi bëri na. Mm. détails yi bëri na fii la dugg fee la jaar et Sénégal amul solo. Mm-hmm. ñun ñoo bokk nday bokk bàyyi. Mm-hmm. donc na rafet daal képp kuy def loo xam ne ay détails wala. yooyu da gën a tardé rek doo jëm kanam jëmaluloo kenn kanam mm-hmm. waaw te jamono ji nit ñi ku nekk yaa ngi xool nooy avancé et tout donc nañ ci nekk tàppe xol yi bokk ndey bokk bàyyi lépp dem